jaa ngeen jëm mbokk yi taamu di topp seen site internet murid point info man Ndeye Thiam Saliou tey nag maa ngi wàcc fii nga xamante ni si moo di arrondissement Ndam fas yéene fi indi li nga xamante ni si ay laaj la ñu fas yéene koo seq ki nga xamante ni si moo di sous préfet de Ndam monsieur Mansour ñu dugg ci biir wan leen li nga xamante ni si moo fi am mbokk yi comme niñ leen ko waxee woon ci biti rek ñoo ngi nii toog ak monsieur Mansour Diallo monsieur le préfet ko mu présenté wu auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu sante yalla ya julli ci yonentam bu tedd bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi sante suñu ñaari wajur di ñaanal Khalif General de mourid seyd Mountakha Bassirou mbake yalla fi yag te wér donc tey yene a ngi fi fii eh, ak sous-préfet Ndam c'est-à-dire eh, monsieur eh, sëñ Mansour Diallo ah.

jërëjëf euh, soxna si soxna si Ndeye Thiam waaw donc euh, xam nga carte d'identité yi euh, dafa di ñaar ñaari xeetu kii ñoo fi nekk kii révision dafa tombé am na yi nga xam ni bi ñu ngi fi woon depuis refonte 2016 yooyu carte ñu si jotoon inscrire nekkoon nañu.

ñooñu ñooñu inscriroon fii si si si Touba léegi nag euh, inscription yooyu nag xam nga dañuy distribuer carte yi bu ñu alors euh, yi ñu si jot distribuer si refonte 2016 yi distribuer nañ ci lu tollu ak euh, ak 321 022 kooku distribuer nañ ko 2018 bi yi jot a ñëw nii distribuer nañ ci lu tollu ak 27 681 maanaam bu ñu xoolee carte yi ñu jot distribuer yep y 348 703 donc euh, carte euh, carte à distribuer ño waye carte distribuer yi 292 875 sur fonte bi 2016 mais 2018 bi actuellement c'est 1589 té bu ñu calculer yep yep yep distribution bobu yep 294 464 donc tey jii nii mi ngi lu des ci ay cartes donc yooyu mom lañuy jara wax tey jii lu des ci cartes yi carte refonte 2016 yi nga xam bi depuis 2016 buñu commencé refonte bi boobu ba légui ñu ngi distribuer ka amna ay cartes yu dess yooyu amna si tollu nañu si 28147 ñom ñoom ñoo fi ñoo fi ñoo fi des nii te ñoom la ñuy moom la ñuy jot euh, n'est-ce pas 2018 euh, bi. Euh, carte yi ñu jot distribuer ci 2018 bi ni euh, yi nga xamni ne mo moo des pour ñu distribuer ko kon des na ci 20 toll na si vingt six mille quatre bo douze cartes boo ko xoolee boo ñaari ñaari ñaari pàcc yooyu yëpp euh, cartes yi nga xamni bi tay ji ñom ñoo nek fi tay ji si suñuy bureau ñu war ko donc jox électeur gi askan bi toll na si cinquante quatre cartes donc mom la joré war ko distribuer te ñu ngi si xalaat nu ñu koy euh, distribuer nu ñu tërale ay pexe ba électeurs yi mën see jot fii balaay 24 février 2019 incha allah. wallaay ku ñëw rek moom mën nga jot sa carte d'identité moom kay nañu ñëw ñun kay fi mu nekk fi dañoo soxla ñu ñëw ndaxte bañ naa ko ba sax pour euh, yombal euh, distribution bi dama ko xaajale ndaxte 2016 ba 2017 carte yoy yeb boko xolé ñu ngi koy distribuer ci souf yi nga xamé ni bi moom la def ci 2018 bi, yu bési yoy ñu ngi koy ñu ngi koy aj ñu ngi koy distribuer fi ci kaw donc lool yeb pour que mu baña a té te nit ñi nga xamé ni bi ñoom ñoo nekk ci distribution bi ak euh, personnel d'appoint bi nga xamné bi ndeysaanam ñu ngi may jàppale ci liggéey bi ñoom tamit boo ko xoolee euh, dañuy jàppale sax euh, waay laago yi waay laago yi xam nga mënuñu yëg escalier yi si kaw mais am na ay ñu nekk si suuf n'est-ce bu ñu gisee bàyyi laago waaye laago ñoom ñooy jël sa sa sa récépissé ndeysaanam ne la toogal ñu yéeg ba si kaw toppatoo la sa kayit ñëw andil la donc loolu yëpp wax dëgg yàlla maa ngi koy rafetlu ñu ngi jàppale vraiment askan bi si liggéey boobu yëpp pour que daal euh, ñu jot ci ñoom ñëpp seen i si suñu mu gën a gaawee leeral bi ci carte d'identité yi am na solo torop ñu bëggoon a xam tamit nga ñëwoon ñu ci bureau de vote yi ku bëgg a voté yan bureau ak ñaata bureau lañ ci yokk nga bëggoon nga indi ci ay leeral. Euh, jërëjëf soxna si xam nga euh, bureau de vote yi moom yokk na ndaxte tey jii euh, ñu ngi tollu presque mën naa wax ni si 600 bureau de vote presque tollu nañ fa. parce que nous avons un bureau de Japon 594. Ouais, Japon nous avons 600 bureaux de vote. Nous ces 600 bureaux de vote. Nous avons beaucoup de vote. Et bien que nous avons le centre de vote, nous avons 74. 74 centres de vote. Donc, euh, lan la ñuy dafa am nag ay bureau de vote yi nga xamee ne bi dañu ko yokk si euh, si si si bureau de vote yi te yooyu euh, depuis daaw euh, comité électoral bi ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko laajoon ndaxte sama naataangoor gi nga xam ne maa ngi fi wutu maanaam sëñ Mamadou Mbacke Fall moom moo déggoo woon ak comité membre du comité électoral bi kuréel googu ñuy tëral te loi 65 disposition article 65 du code électoral mayoko, parce que kuréel bi nga xam ne bi ñoom soytu wàllu élection bi lu ko tàmbali sa commencement élection ba sa cëppaandaw li kon euh, bobu kuréel ñom ñoo d'accord ni dañuy yokko dañuy soxla ay bureau de vote yu bees ndaxte nemmeeku woon nañu amoon na ay béréb fii si biir Touba euh, nit ci daw ñoo ñëw di vote ji té dañoo soré won bureau de vote yi ndeysaan te da fay gàllankoor taux de participation bi buñu ñu waxtaanee ba seytu yoy bureau de vote mu tollu won ci djuroom ñent djuroom ñent la won sax waaye amna na ci juróom-ñett yi nga xam ne bi dal di nañ leen euh, samp kon meun nañ wax ni presque 100%, la yoy bureau de vote yu bess, bokk na ci Burel tiarel euh, Burel tiarel bokk na ci Busobe, bokk na ci Bukotal, Mubarak. bokk na si euh, Touba Njaarim bokk na si bureau de vote yooyu Daaru Tanzil bokk na si Sourang Juuti Mbàkke Baari bokk na si tamit Sicap Touba yooyu juróom-ñett euh, bureau de vote yu bees la ñu ngi leen samp donc si dëkk yooyu ma lim léegi léegi yooyu dëkk nag seeni population dañu doon dem lu toll si ay. fukk ak ñetti kilomètres wala fukk ak juróom kilomètres ba si ñaar fukk kilomètres di dem di voté ji si yeneen i béréb te loolu dafa doon gàllankoor euh, kii bi donc ñooñu ñëpp ñëpp ñëpp sax bu ñu calculer bureau de vote yooyu ma la lim léegi dina toll ji xëy na si quarante euh, si lieu de vote yooyu dina toll ji si quarante bureau de vote ñeent fukki bureau de vote lay toll ji bu ñu ko calculer si lu ñu war a doon ji li ñu war a yokkuwaat si si suñuy kii te boo ko xoolee foofu tamit bi ñuy yónnee si biir de vote yooyu toll nañu si quatorze mille trois cent soixante dix neuf électeurs yi war a euh, jël si seen carte seen carte yi tey jii mu ngi fii tey jii loolu nag dañu commencé nag di si xalaat bu soobee yàlla altine bi du ñëw dafa am benn plan de distribution. calendrier de distribution bu ñu fas yéenee pour dem ci dëkk dëkkaan yooyu ma la wax dëkk dëkkaan yoy ñu ñew bés bu nekk ñu may nañu ñen ñi ñetti fan may nañu ñen ñi ñaari fan ça dépend rek si nu mu tollu wayu électeur yi fofu ak carte yi pour ñu dimbalé len ñu jot seen ay carte inshallah allah. sous-préfet leeral bi am solo trop macha ana lan ngay tontu ñi nga xamante ne si nee Macky Sall da la fay teg ngir yaq élection bi. <laughs> damay dafa may def ay reetaan sax euh, ndaxte yaakaar naa ni kenn jógul pour di yàq élection waaw li fi amoon 2017 kooku dafa doyoon waar loolu dafa dépassé sax euh, doomu aadama dafa jaxasoo woon te yàlla si ndogalam sax mu ñëw andi euh, taw. ak ngelaw bu bare bare mu sax jeex lépp rek wàccee def ko si ndox mu ndox nekk dëkk bu sedd tedd tedd bi nag ñu tuddee ko Touba yaakaar naa ni kenn du ko fooye waaw eh, ñuy wax loolu bu ñu xamul tuubaa ñun xam nañu Touba kooku koy dëgg muy wax yooyu wax rek boo ko xoolee xamul Touba waaw dëkk bi sell bi nag ñuy Touba ñun dey eh, dañoo fas yéene fii def liggéey gu rafet bu mucc ayib ñun xam nañu doyam xam nañu président de la république lu mu fas yéene si dëkk bu tedd bi euh, yéeneem si dëkk bu tedd bi ñun xam nañ ko Touba dañ koy tiitaroo te dañu bëgg lépp li nga xam ne bi ñu ngi koy def si biir réew mi Touba doon si am si ndam Touba nekk si royukaay Touba war a jël raw gàddu bi loolu ñun bu ñu liggéeyul si lool xawma ma san la ñuy dox monsieur sous-préfet monsieur Massour Diallo kàddu yi leeral solo trop ñu lay bàyyee sa kàddu tàggatoo. di leen di leen gërëm di leen sant di gërëm yéen wa murit point info info. Euh, di leen ñaanal ndaxte fii ngeen teg seen tànk la transparence dafa baax trop ndaxte yéen euh, da ngeen di doon taskatu xabaar. am nga taskatu xabaar nag moom euh, xabaar dafa nekk lu doy waar ndaxte looy tas am na fu muy jóge fan lay jóge mooy si làmmiñ cër googu nga xamee ni bi yàlla sunu borom subhaanahu wa taala daf ko jël wërale ko ak 32 soldats mooy ay bëñ dellu dëppaat si ñeneen ñaari soldats mooy ñaari tuñ donc boo demee ba yow sa liggéey mooy tasaare yu yu jóge si si si cër jooju sax da ngay xaw di di di di di da ngay war sax yow sa wàllu bopp def attention moo tax ma leen ci ñaax waaye tabaarikaal yàlla ne yàlla sàmmal boppam liggéey bi set liggéey bu noobal la nag mais buñ ko sellalee rek dina noox maanaam li nga war a génnee dafa war a baax parce que accident wu làmmiñ baaxul accident boo mënti gis accident làmmiñ moo si gën a bon dégg moo vraiment nit buy wax day xam lu muy wax nit buy wax day maîtriser li mu wax nit buy wax daf fekk nga war a wax nit buy wax daf fekk ñu ne la yow yaa war a wax waaye nag ñu ngi si dëkk bi nga xamante ni bii réew mi nga xamante ni bii tabaar fakal la ñun mëtaguñu vingt millions d'habitants de Sénégal mëtagul vingt millions d'habitants waaye mooy loolu rek donc euh, yàlla yàlla nañu yàlla jàppale euh, teg ñu ci yoonu murit murit sa déex murit sa déex mooy le Sénégalais émergent man fofu la ko jappé rek sénégalais émergent bob moy murit sadix bu ñun ñep 20 millions d'habitants yu nek ay murit sadix bu soobee yalla ci kàttanu yalla Sénégal day nekk dëkk bi nga xam ne dañ koy naw ci aduna bi donc euh, yalla leen yalla jappalé di rafetlu émission bi wax deug yalla contana trop ngeen ñew jox ma ki bi ma léral askan bi ndax ndaxte fi ñun ak yeen ak population bi benn la Wat Gaal Yéego jërë ngeen jëf. jërëjëf monsieur Mansour Diallo kàddu yi am na solo trop ñu ngi lay remercier bu baax di la jox dig daje ba beneen yoon incha allah jaa ngeen jëf.